asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di amaat mbégte teew fi tey teew nañ fi daaw daaw jéeg daawaati jéeg teew fi ren yàlla nañ fi teew déwén euh, ñu ngi nuyu monsieur le ministre Ndoye avec le deuxième adjoint Gueye monsieur le secrétaire municipal empêchement le ministre souhaiter souhaiter joyeux fête de Noël joyeuse fête de la nativité monsieur son excellence honorable monsieur Abumbo, vice-président l'Assemblée nationale di monsieur le maire Kayar di suñu di responsable de ci biir commune responsable de di beral conseil yi nga xamante ne ñëpp responsable comme tey dañu ñëw rek ngir sargal monsieur le maire sargal monsieur le ministre directeur de cabinet de son excellence le président de la république Macky Sall. monsieur le maire monsieur le ministre turu ñu ma lim ñëpp ñu ngi lay di la gërëm ci taxawaay bi bi nga xamante yaa ko am ci askanu Fandène wante askanu Sénégal de manière générale rawatina nak ñun wa

sankla laa ànd ak monsieur Ngane Gueye ma koy nuyu au passage ak son doyen Mamadou Ndiaye ñu demoon benn ci Thiénaba ci ben village te ci yoonu souf lañu jaar bu bari souf ba yegg ci village bu mag ba te tey jii amul ben dekk bu nekk ci bir commune fandel bu nga xamante ne yoon bu mel noonu bima daj tay amna fofu foofu kon sen le ministre lay sant di la gëm gis nañ taxaway bi xana di la ñaanal yalla rek ak sax ndawol ak soxna ci yalla defal len jamm yalla gën la boole ak son excellence le président de la république ndax xam am nañ xam nañ am na confiance am kon xam naa ne kàddu yi du mën a gudd du mën a bëri xanaa sant yàlla suñu borom di ko ñaanal yàlla ñuy fete fête bi fête yu bëree bëri euh, ñun ñëpp ñu fekkee ko te tal ko ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam damay faral di wax nag ci samay nuyoo naan ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñaanal kilifa diine kilifa aadi yëpp su ma ko waxee paa yi toog ñu ngi ci biir di ñaanal yàlla defal jàmm njiitu réew mi njiitu réew mi son excellence Macky Sall yàlla dolli koo defal jàmm parce que bu amee jàmm rek réew mi am jàmm moo tax saa su ne dama koy ñaanal jàmm euh, di nuyu suñu ministre bi nga xam ne mooy directeur de cabinet président di Augustin Tine ak président Abdou mbaw ak kilifa yi fi nekk yëpp ak responsable yi may wax nag ci turu commune Thiès nga xamante ni Euh, kenn demul ñun ñu des parce que tey boo xoolee ci li président réalisé ci wàllu promoville nga xamante ni kenn laam-laamewu ko lampadaire yi nga xamante ni defal na ko biir commune Thiès ak yeneen ak yeneen bourse familiale yi moom du ma wax yooyu parce que nit ñi xamal nañu seen bopp loolu waxuma nag euh, euh, monsieur le ministre mi yëg-yëg gi nga xamante ni am na ko ak engagement bi mu am ak bëgg responsable APR yëpp ak commune

defal la ndam yu kawe sa njoor maa ngi wax rek ne xam naa ne ñi moom mi wax ne yàkkamti yàkkamti waaye xam naa ne moom bu joxoon village bu nekk mu wax rek ci temps de parole bi heure bi pare nañ euh, monsieur le ministre man duma damay bokk fii ñiy dalal nit ñi fii ndax mënuma ñëw naan maa ngi nuyu diw ak diw parce que euh, Pandel mom keur ogis comme niñ koy waxé man fi la dëkk donc dañuy sante ñëpp té di def ben précision muy ñi ngi wax ne ñi wax ne ku ñëw ci programme yakamti da ngay dem il faut ñu def ben précision yakamti bi fi mu moy monsieur ministre nit ñi nekk ci biti yàgg nañ am na ñoo xam ne fa ñu jógee dafa sori te fi la añee toogaay bi yàgg na donc nañu wàcc bàyyi gan ñi ci kaw libéré nit ñi doog a donc il faut que aussi nit ñi xam ne du nit ñi ñoo yàkkamti mais moom moo yàkkamti pour nit ñi bëgg dem parce que toogaay bi dafa yàgg daf leen yërëm ci yàggaay bi donc il faut que loolu aussi ñu leeral ko parce je pense que fii lenn rek moo ñu fi nii mooy sargal ko parce que du ñëwuñu fi pour meeting du politique du leneen ak leneen yàlla mooy def booy ànd ak nit mu am bànneex danga ko war a dem su amee naqar danga ko war a dem tey am na bànneex ñu am Noël ay mbokkam xaritam militant am ñi muy àndal ci àdduna ñëw ne ko joyeux Noël mbir mi loolu rek la du leneen parce que moom souvent sama waa kër sax loolu lañ may wax ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñu ne fii bu ñuy tugg ay bool sax Augustin dina ñëw lu xew mu jóg ñëw kenn du ko sóor sax mu jékki-jékki rek gis ko mu sol grand boubam ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam dem yoonam donc loolu mooy wane attachement bu mu am ci doomu aadama et loolu c'est très important parce que fii koo faalewul rek faalewul koo yaakaar yàlla la yaakaar j'ai l'habitude de dire que président de la république Macky Sall mi nga xamante ne mooy suñu njiit moom yorul wërsëgam ba yorul wërsëgu kenn muy Augustin Manar keneen c'est ça réalité yàlla nag moo def tey mooy suñu njiit ñu nangul ko ko yàlla def ay teraanga jaarale ko ci moom mu jot ci nit ñi jot ci su ko joxewul woon moom du ko fekk donc il faut que loolu ñu mun ko di xam te moom xolam rek la ko nit ñi di fay ñi fi wax ñëpp muy Lamine Dramé di le président de la commission des finances di Madabo di nuyu aussi Salif Diapor Diabel ñi fi wax ñëpp benn wax bi rek la ñu wax ñëw sargal ko sargal njabootam soxnaam surtout parce que ko aussi kër quoi qu'on puisse su fekkee nit yaatu na fa jigéen ñoo tax parce que man li may peut-être yaatu yaatu mën a kaf mën a kaf sama soxna wax dëgg yàlla boo jubawul ak moom boo ñëwee ci kër gi doo ko yaatu c'est ça la te moom it bu yaatuwul keneen du ko yaatu donc soxnaam ñu ngi koy sant di ko gërëm sànq am na ko ko wax boo fekkee Auguste dina la teral soo ko fa fekkul dina la teral et ça c'est très important moom ci boppam sax soo ko laajee benn mbir bu xawee compliqué sax mu ne koleto donc ce qui veut dire moom ci boppam sax bu jaaxlee mu woo kolet donc loolu dafay wane rek ne soxnaam aussi ku am solo la ku ko jàppale la te moom it ku baax la yàlla na ko yàlla gën a jox kàttan jox kàttan njabootam yépp di wax rek ne Augustin moom dañ ko yore ñaanal rek yàlla gën koo kattanal sànq nag ñu ngi wax tout le temps li ko dal moom a dal parce que sànq ba léegi ñu wax Abdou Mbow vice président assemblée nationale moom it souvent moom mii sax des fois ma ne ko ministre des forces armées parce que mbir mi dafa xaw a yàgg man nekkatuma vice président assemblée nationale léegi président commission affaires étrangères mais xam nga mbir mi dalay topp ba mbir mi dalay des fois man MFA laa koy wax ba léegi parce que loolu mooy li nga xamante ni rek mooy kóllëre bu ñu am ak le président te président nag wóolu ko koo gis mu def ko ministre directeur de cabinet kooku am na ci yow yaakaar am na ci yow kóolute parce que loolu tubaab la mais xam nga bu ñuy wax ci wolof dañ naan bëkku néegu sëñ bi ndax xam nga bëkk néegu sëñ moom boo bëggee gis sëñ bi foog nga jaar ci moom su sëñ bi tijjee moom lañ njëkk gis buy tëj moom lay mujjee gis donc loolu ci wolof xam nga wolof loolu la dañ naan bëkk néegu sëñ bi rek donc loolu mooy li nga xamante ne nii moom moo am donc vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla gën ko may kattan Pandengi, gi je pense que léegi rek bi may ñëw laay wax sama soxna ne ko wa fanden nak, war nañu gëna japp jàpp Augustin ndax nak tag bo gis am lo jàppal diw dëgg peut-être may ayam la tombel courant am fi tali am fi ndox am fi financement am fi leneen ak leneen ak am fi kenn musu ko fay def na ay PCR amon na ay maire amon mais defuñu ko fi loolu la yalla dogal parce que nit aussi il faut nga am ay diw di nangam wuy wuy nekkon nañ fi mais defuñu fi loolu kii moo fi def lii ambulance bu ngeen ko musoon gis da ngeen di dañuy woo Saint-Jean-de-Dieu waa hôpital régional ambulance ñëw suñu demee bañ naan biir Fandène am na ay ambulance benn ñaar ñat mais loolu nañ ko gërëm ki nga xam ne moo ko fa indi te gën koo jàppale nag parce que chaque jour woote ñu ñëw toog ñi musóor ñi sol seeni mbaxana ñu ñëw toog waxtaan ki élection jot ñu naan noo def na mille wàññi loolu tamit dañ ko bàyyi nit ñi aussi war nañu mën a di gën a góorgóorlu te loolu du affaire politique mais problème mu municipalité la affaire maire yi du affaire présidence ak affaire leneen dañuy xool ki nga xam ne moo def ci dëkk bi gën ci dëkk bi ñu ne nañ jàppale loolu bu ñu koy def yaa ngi koy defal sa doom yaa ngi koy defal sa njaboot yaa ngi koy def comme le président le disait si on perdait le perdait le pouvoir il n'en serait pas la plus malheureux tey jii mairie Fandène bu jóge woon ci loxo benn Bokk Yaakaar kii du ci gën a sonn bu ñu waxante dëgg rek parce que loolu mooy la réalité souvent da ngay wax ñu ne non dafa gisul boppam faalewul nit ñi faale na nit ñi mais aussi nit ñi nañu xam seen bopp ku nekk dafa war a boppam comme ça wax dëgg yàlla coow lu jeex maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne kàddu yi lépp luñ ci yi mu doon loo xam ne lu ñagas la nañ ñu ko baal di nuyu suñu chef de village yi suñu imaam yi suñu kilifa yi di leen wax na ngeen gën ñu ñaanal ndax lii dafay wane lu bëri oyofu Augustin baaxu Augustin mais aussi li nga xam ne mooy dundu diggante chrétien ak musulman

dépassé nañ affaire religion donc aussi c'est une dimension très importante. Nous ñi nous, nous, aussi parce que dañoo Nous Nous am maire nous adjoint maire imam chef de village.

jërëjëf jërëjëf jërëjëf dama bëgg dama bëgg rek ñu juboo ci bor boobu parce que xorom si bu ëppee aussi day weex donc nañu fexe mu yem parce que gis naa leen yéen ñëpp képp ku fi nekk bu ma sañoon toog ak moom waxtaan ak moom parce que li ngeen def lu rëy la pour man parce que ku ci nekk am na feneen fu mu mënoon dem am na leneen lu mu mënoon lijjanti ñëw fii ci sama kër loolu mbégte la pour man maa ngi leen ciy gërëm di leen sant ngeen xam ni saa yu ma rombee nit te taxawuma jot bee matewul bu ma sañoon taxaw parce que ki ma àndal muy président Macky Sall xam naa mbaax mi nekk ci moom démb maa ngi woon ay kilifa ñu toog may wax ma ni leen bu ngeen xamoon président bi ñu am ku ci nekk boo xëyee dañ koy ñaanal suba ba jant so président amul noppal président 9 heures et demi mi ngi bureau du fa jógee avant 22 heures minuit bu ñibbee dina liggéey ba 2 heures 3 heures du matin kooku yépp ci mbirum Sénégal yàlla def nit ñi wóolu ko bitim réew nekkatul seen président kese nit ñi dañu ko wóolu ci bitim réew surtout Afrique lépp lu xew ñu ni président Macky Sall ñëwal waxal donc am ngeen président boo xam ni ñëpp dañu ko nawloo donc ñun nañu ko téye bu baax a baax wax nañu sànq mbirum courant effectivement am na ñoo xam ni ñu ngi kaas pour ñu ni courant bi bu ñu ko yokk courant bi li ñu ci yokk du première tranche maanaam ñun néew di doole yi bu ma ko waxee mooy ñun kaw-kaw yi di ko ndamoo nag di ko ñeme di ko ndamoo dëkk fii kaw-kaw xam ngeen ni awuma kër Thiès tabaxuma fa fii laa tabax Fandène yàgg na nag pour wax leen ni ñun dañoo bëgg ñëpp a jot ci courant mais ñi nga xam ni am nañu courant booba depuis 1900 x am nañu courant avant l'indépendance, il y a am ci mbirum dollar ak mbirum pétrole et ni duñu ko yok té ñoñu ay borom 200 000 300 000 1 million 2 millions 10 millions d'électricité. mais am nous ñoo dollar. ñun kaw kaw gi courant donc ñun bëgg nañu courant bi accès ci ñun te comme ñun ala kulli ali bu agsi ci ñun nous fay ay 200 000, 1 million nous fay li ñu indi pour suñu nous yi mëna jang frigo gën nga bari ak am ay sécurité donc nous bokk nañ programme bi du suñu programme programme président dal pour mais gëm naa ni suñu borom dina ko may dal boobu parce que di ngeen ko ñaanal xam ngeen ni moo gën ci ñun c'est vrai démb yaakaar naa am na au moins juróom-ñaari dëkk yoo xam ni courant bi agsi na fa loolu bu ngeen ma dégloo booba waxoon naa leen ni problème courant kay jaaxaluma pour mu agsi mbaa dinañu am lu ñu koy fayee loolu laa waxoon booba bu ngeen fàttiwu te la ma waxoon moo am ba léegi problème bi kay moy fay ko mais courant bi dina agsi parce que président fexe na ba li ñuy wax courant ci bopam pour li koy indi am nañu infrastructure yi pour courant bi am bu jëkk courant amuloon bu doy parce que ñi fi nekkoon xarañu woon xarañul woon pour mën a fexe ba courant am bu doy mais ñun courant am na bu doy des na kay yóbbu ko mais am na bu doy donc loolu c'est déjà un pas très important war nañu xam ni ki ñu am dafa xariñ ci liggéey ci liggéey fànn boo jël nag boo jëlee agriculture boo jëlee éducation loo jël rek nel président lan la def autoroute boo jógee fii tey man léegi 50 minutes maa ngi Dakar autoroute APH autoroute APH da ngay jógee Dakar dem Touba en une heure et demie yaa ngi Touba loolu nag il faut nga xariñ pour mën a xam ni loolu mën na nekk dañu yaakaaroon ni yooyu ay wax la rek ñu ni président bi day gént gént yi nag dëgg la léegi donc pour wax len ni ki ñu am mo gën ci Sénégal légui nak nañ ko bayyi mu liggéey mi ngi ci deuxième mandat ñi doon wax troisième mandat nopi nañu parce que président da ngeen ñu ko doga fal ku ñu fal lu ñuy wax troisième mandat xana bayyi ko mu liggéey kay tuuti mais ñi ngi fal rek ñu ni troisième mandat xana dañu ragal lan lañu ragal bu fekkente ni yow wolu nga sa bop da ngay wax ak sénégalais yi bu bés ba jotee nga wax ñom ñu wotel parce que fii ku ñu gañe nga ñibbi 2019 yaakaar naa coow amul bi ñu gañe élection yi coow amul ñu ni président gañe na gars yi naan woy nangam nangam waaye coow amul ba léegi parce que booy dem élection nga am say nit sa représentant ñu génne kayit yi benn par ben waxoo ci dara nga xaar ba ñu ñibbi nga ne affaire bi leerul te amoon nga fa ay nit ñaañ seen nit ña nekkoon foofu ño wax ci suuf naan gaay kat dañuy wax rek affaire bi leer donc boobu leer na fi mu ne nii liggéey moo def te président mi ngi ci liggéey donc dama leen di gërëm di leen sant di leen wax ni man amul dara lu ma digge ci commune Fandène dama leen ni woon bu ma sañoon du ma gis jigéen bu yenu paak te ñi ngi ci yoon bu ma sañoon am ci dëkk yépp bu ma sañoon yoon yi baax bu ma sañoon ñu wër nan la ñuy def pour que éducation bi jëm kanam parce que dama ni doomu commune nu fande dama bëgg ñu jàng pour ñu jàng il faut ñu am courant il faut am courant mu leer parce que làmp suñu classe suñu temps la woon mais bëgguma samay doom ak samay sët di war a jël pétrole wala wala wala bougie dama bëgg ñu am courant moo tax ma bëgg ñëpp am courant loolu nag bu amee jigéen ñi bu ñu dematul teen ubbi robinet yaakaar naa di nga am jot surveiller sa doom bii pour mu mën a jàng ay leçons te loolu ci avancement la bokk donc li ñu fi waxoon mooy fexe ba suñu commune bi am développement te gëm naa ni ñu ngi ci yoon wi dañ ci jàpp ñun ñépp fexe ba lépp loo xam ni mën nañu ko ñu def ko ma terminer ci nii tey suñu feet la feetu Noël Pape Ba la mu wax nee na spécialement nañu ko jagleel jam, ak baneew Jam, ak baneew kese amul leneen donc nañu fexe ba jam am ci réew ñuy baneexu nag tey mom, reer rek amul xuloo suba amul xuloo ba dëwin rek donc maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp gis naa ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant